nee naa ko kenn dootu présenté doomu Adja doomu Pathé Sène Doudou nooy dundee succès bi ak xale yu jigéen ñi. xale yu jigéen ñi samay sœur lañ samay yaay lañ samay xarit lañ jigéen ñi sama xarit man man jigéen ñi laa bëgg man ñoom ñooy sama xarit quoi man. waaw loolu nag. <laughs> loolu non loolu nag jëlee naa ko bàyyi may ko rek mais jëlee naa ko sama papa may may naa ko nag sama papa laa ko jëlee ma koy ma may ko bës boobu quoi waaw. fekk le xam naa di sur scène ndax nee naa la fecc boobu moom yow rek yaa ko tey nag kuñ topp si scène bi gis exclusivité non tey sama bés taax du doog ngóor ambiance bu métti doole. li nga xamantene moy sa job nga nek acteur donc ci série bo xamantene ne la machallah da ngeen di yété euh, qu'est-ce que ça te fait ngeen nek en famille du jouer série bo xamantene machallah macha mën nañu ne vécu quotidien la té ñëpp dañ koy gis en plus nga nek ay way waaw bon série Adja mom c'est c'est c'est toujours une fierté nga def ben affaire mu réussir donc euh, tay ji série Adja fël na. acteurs yëpp ñu bëgg leen série Adja moy seule série bo xamné do am commentaire bu négatif que des commentaires positifs di si santaat yàlla nag parce que gis bëgg yàlla moo koy def képp koo xam ne yaa ngi bëggee benn acteur bu série Adja man maa ngi lay fekk ba fi nga toog ma ne la jërëjëf di la wax nag bon que c'est c'est très facile de jouer ñun suñu biir parce que bon relation yi ni nga koy gisee série bi noonu la demee ñun ñëpp on s'entend super bien xale yi jàppee nañ mag yi mag mag yi jàppee nañ xale yi raq waaw waaw Jogay boo ñu gisee ñu joué nga xam dañoo déggoo Jogay sama nam en fait dama ko non loolu dëgg la man c'est un nam amour de jouer ak per Diagoy dama ko bëgg donc tey jii su may jouer moom rek damay def le tout ba jox ko moom lu mu soxla mu mën a jouer lu neex pour su ma toogee sama kër ma seetaan nga kontaan ndax dama koo ah. sànq dafa am ko fi toog mu ne ma ngóor sa ma ne ko ngóor du sama copain sama rax la ngóor sama rax la et lépp lu ma nar a am ci aar yàlla na ko ngóor am tamit. waaw parce que maanaam ku bàyyi ñëpp ñëw si yow loolu dafa foor góor ñaaxum fu mu nekk si senegal waaw dafa bàyyi kër yëpp ñëw dëkk ak man kon tey jii moom xëy na dina ma gërëm mais man maa ko war a gërëm ci wóolu bu ma wóolu ndax ko mën naa ne ci séeri lañu xamante ne tey jii mu ñëw dëkkal ma ma koy kontaanee di ko kontaanee ay parents am di ko wax lépp lu mu yéene ay parent am yàlla na ko yàlla may lu sut ay njottam mu defal leen ko ko waaw mooy loolu. wala ana alima sa alima yow jaxasakan nga ne jaxasakan nga ne ah alimo ah mu bëgg ci film bi kay waaw mais lay bëgg alima ci baye ah mais film man dama bandé yow ci film bi man awma temps man ci film bi awma temps non oh, dama xat xat non oh, film bi film bi ñom ran xaar waaw lool nga fokk déggoo ma ne la Alima dafa am sama faiblesse xolam maa ci fees waaw ba mu fipp ami sa la. doon waxtaanal macha allah mu nekk acteur nekk xale boo xamante ne il est talentueux waaye dañ koy ànd ki nga xamante ni mooy ngoor ngoor doomu ndayam nii rek boroom waaw waaw bu métti dañoo newoon ci lu am solo. wax dëgg yàlla moo ma gënaloon sax yi ngeen di def nii dama leen xaw a rus rek waaye. waaye yàlla baax na daal waaw. ñoo la raw. mbaa yi nañ ci jàmm. Mm. ah waaw Dakar Dakar instant ci bi may waxee mm. génnee loolu day wax dëgg yàlla li muy def ci man mën naa ni ah mënum damay diis sax pour moo ko mais nag gis bëgg yàllaa koy def ci jàmm mais gis bëgg yëg a koy fay nit ki bu la bëggee da nga koy yëg gis nga boo tollee fenn fii wala nga mel nen nit ñi Sénégal fii ñu bëri loolee leen sonal boo rombee nit ñi ci mbedd mi da ngay wax ak ñoom jàmm santeeg ñoom jël xale yi fop ñu yuut la loolu yëpp baax na mais nit ki la bëgg fayoo ko pour mu bëgg la daf la seetaan rek bëgg la man xamuma lu tax ñu bëgg ma damay tëju ci néeg man rek di laaj lan moo tax sénégalais yi bëgg ma di laaj sama bopp man xamul tax duma ci am réponse parce que laaj gi may laaj lan motax ñu bëgg ma dina dem ci sama bir bop ba xam ne man exactement li may def ni motax ñu bëgg ma mais li may def nyubeguma, lan motax ma def ko donc li may def ni li ak li ak li motax ma def ko li tax ñu bëgg ma est-ce que bëss du ñëw ñu ma parce que amna ay gaay yu fi jaaroon né ñaanuma yalla dugg ci kambu gogu parce que nit ku nekk bo nekké ci mbir di liggé da nga ñaan yalla dem ba yegg fi fo xam ne kenn yeggu fa ci say morom wala ci say mans kon nak yeena ñu mëna jappalé yeena ñu mëna soutenir nit ñi jàpp leen ne nguur mi ngeen bëgg wala duudu mi ngeen bëgg benn bu ngeen leen bëgg bëgg nañu leen fukk. Hmm. waaw loolu nag mooy li ma la wax léegi ne la li tax may tëju ci néeg di liggéey lan moo tax may def lii loolu moo tax may am complicité ak Père Diogay parce que liggéey moo ñu boole maak moom ñu bëri sax souvent metti na parce que àdduna lépp loo gis dafa metti yow li ngay def nii rek dafa metti lekk moo gën a xaw a yomb ci looy gis ci gis-gis mais moo gën a métti kon donc àdduna lépp loo gis dafa métti waaw li nar nag moom bu ko waxee fii day naan darti waaw mais son pour la ci son bu bees la boo xam ne mais suñu doomu ndey lañ koy ñamal parcel koko ko mais son bi bu ñu paree dafa war a génn na ko Sénégal yëpp xaar tamit benn son bu la Gambie lañ ko Sénégal fi nak lañ wara ñëw pour kii fi son bi génné ko single lay doon nako ko ñëpp xaar. macha allah moom ma fi waxoon li nga xamantene mana maanaa dal di koy duyu ak ki nga xamantene moy Fallou Dieng mu doonoon lo xamantene ne macha allah jusqu'à présent du fay Modou Ndiaye dama koy bàyyi ak mu nuyu kiko ko à travers Dakar Instant ñu ngi lay nuyu. waay ma ngi leen di fay di nuyu ñëpp di se di nuyu ñu ni seetaan ñëpp di leen jox euh, seen wàccuwaay euh, di leen ñaanal jàmm. di ñaanal at mu bes bi ñuy dugg ci ni eh, yalla na len ci yalla defal jamm kep ko xamantene ni lepp lu way bëgg rek yalla na la ko yalla defal ta mu doon sa njiglaay ma ngi ni rek waaw ma ngi ni rek nek no deggal deggal xaaliss mom no xaaliss mom xaaliss mom xam nga ñun sañ sa mom dafa dafa doon sunu sunu sunu ki rek ndax ay doomu lan waaw loolu la rek mais même ñu ngi sante yalla bu baax nak waaw ñu ngi sante yalla bu war waaw waaw fu mu nekk nii def naa tàccu daal la euh, waaw tàccu daal def naa ko euh, ànd sax El Hadj Keita tamit waaw mu ñëw def si lu nice euh, di wax di woo ñëpp nag le 25 janvier di leen wax na leen lancement laas laas nuy lancer single bi kër gi teraanga lañ koy defee incha allahu rabbi incha allahu rabbi maa leen invité invité naa leen damaa bëgg.

mi ngi kër ah, fa waaw borom borom borom lépp neex yi moom lépp mat waaw waaw macha allah. daanaan la sigini baabi la griot la xam nga c'est dans le sang mu ngi ci deretam yàlla def nañu gañe leen loo xam ne dañ ko ñun dañ ko am ci musique muy respect foo ñu déggee ne ay ndaanaan lañ mën nañu waay c'est quelque chose suma mag la maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla def carrière bu mucc ay parce que am na lu mu denc lu nit ñi xamul te incha allah wax baaxul mais tey dama kontaan et je suis très très fier de lui sama xol sedd na ndax euh, fit gi mi ngi fi waaye mën-mën bi mi ngi fi ndax nelawul deful

beeg def bruit. jeex na kon nag ah, xanaa ñu rek fu ñu neex dugg élage fu daal ñu dugg fu ko sàpp ba déggin hoo hoo mbàcc naa la mu ngi noonu kookoy sori baa waaye damay ñëw ci le grand danseur Malick jëlal ma lam sañse jëlal ma dàllam nee naa la moom mooy chéri Nogay Ngom lu mu solut baaxul jëlal ma lii borom Medina waaw moo ma ñawal nag moo ma ñawal jox ma ay dàll it ma sol yëpp moom la non daal yi dafa rafet du ma ko sumi dama yee fitna ne nii dama toll ci defante daal waaw waaw ñëw rek soutenir sunu frère euh, El euh, muy frère bu baax nag di di frère bu bu mën li muy def aussi gëm ko nag te lii dama ko ko yàgg a wax euh, kon dañuy sant rek ci ci mbébét bi Euh, montre yu baax yëpp bokk heure di ko ñaanal réussite totale waaw ah, moom ku baax la waaw allah bërët rek li nga xamante ni xale yi wax nañ ko donc mu nekk loo xamante ne macha allah waaye moom kenn dootu ko présenté ne naa la dëgg la dëgg la fay naa leen samay waa kër waaw tey dama dem Mali ndaxte Elaj Keita daf ñoo yóbbu tey Mali ñu ñëw wax ak yéen ci tamono ak teraanga xanaa neex waaw ñun tóor nañ premier parti ba pare yi gis nga de waaye tamit nag def na lu ko war fii moom xam nga ko kàll ci muy gala Cissé ngaari rek te muy dagg bu muy baaxee rek